ñi ñi dee ci géej gi ñu ngi jaale seeni mbokk d'abord di leen masawu ñooñu la ñu bëggoon pour am ko jàppale seen mbokk léegi dafa gën a ñàng maanaam ki taxoon nga ni maa ngi dem dimbale ko bu demee ba gisatu la yaakaar naa ni xel mi dana jaxasoo la mu yaakaaroon ceew du ko gis eh, mu jaaxle jaaxle boobu nag moo tax ñuy wax ne mbir mi dañ cee war a jóg waxtaan ak famille yi ndax affaire bi du affaire Euh, mairie bi wala affaire déedéet affaire bi c'est national te bu ñu nee seen national aussi war nañu waxtaan ak euh, askan wi waxtaan ak population bi waxtaan ak waajur yi ndax am na ñoo xam ni sax yëguñu ni seen doom dem na mais am na ci ñoo xam ni vraiment aussi liñ ci wax am na ñoo jàppale seen seeni doom pour ñu dem ndax ñi jëkk dem yàlla def ñu àgg indi leen ay jafe-jafe te ñëpp àgguñu am na ñoo xam ne ñu ngi ci îles Canaries yi bërki démb rek. fii ci kii bi am na ñaari gaal yu taxawoon jàpp benn gaal bi 83 personnes ñii lijjanti loolu parewuñu ñu ne am na ñoo xam ne 150 la ñu woon 50 mujj ñëw sax yi anañu te fi mu nekk ñu da ngay dem sax ba sax nga jaaxle doo xam koy jaale ak koo dul jaale ndax ñoom ñëpp dañoo am espérance ne seeni doom ñenn ñaa ngi Îles Canaries ñenn ñaa ngi fii ñenn ñaa ngi fële te booy jaale da ngay am lu leer loo xam ni kii lii la. wax dëgg yàlla faatu na comme am na ci ñoo xam ne dem nañu jaale ji ndax am nañ ci ay firnde yu leer mais ci des doo ci mën a xam dara da ngay toog nag déglu seet mbir mi lan la yoo nga mën a soog a mën a jóg dem waaye nag am nañu faatu moom loolu am na ñu xam leen ñu ñàkk leen xam leen di masaw ñoom ñëpp pour ñu xam ni lii ñuy defkat ñun ànduñu ci jaar ci yoonu géej gi wóorul ànduñu ci te géej gi ñu bari sax bu ñuy dem dañuy bañ a yóbbu seen i ndax bu ñu demee ba àgg dañu yaakaar ni bu ñu xamee ni kii fi la dëkk wala kii ñu rapatrier la te loolu pièce moom daf cee baax ci ay nit am na ñoo xam ne dañoo dem ba àgg gaa ñuy téye leen foofu di ñuy wër Sénégal pour ñu envoyé leen seeni pièces ñu mën a dem ndax immigration bi gis nga euh, européens yi ñoo ñu gën a soxla fuuf moo tax ma ni bu ñu ko defati immigration clandestine dañ ko def immigration régulière ndax am na. te loolu nag gis naa fi barki démb sax euh, kii ñëw na fi ambassade euh, kii euh, amba kii bi nga xam ni moo yore affaire étrangère wu fële Espagne ñëw na fi waxtaan ak état bi ñu jël ay dispositions pour nit ñi bañ a sóobooti noonu di dem mais ñu xool nan lañ mën a def ba mu xam ne affaire bi c'est régulière ñu bàyyi leen ñu ñëw loolu moom benn la ñun nag maire yi li ñu ci taxaw mooy bari na bariwul ndax ñun li ñu mën mooy. jàppale ñi nga xamni ñu ngi ci dëkk bi waxna ko barki dem nee leen ci coopération décentralisée bi défon nañ fi benn école de formation bu maga maga mag formation professionnelle avec les Émirats pour un coût de 4 milliards yakarna naa won Covid bi sax lolu yakarna waron na waroon naa bu yàgg ndax défon nañ ko bu mu des peinture ak équipement beeg yooyu te da fay métier yépp lañ lay jàngal té bo jàngé ba paré amul dégg naa tubaab amul dégg naa wolof amul dégg naa tukulóor loo mën a dégg boo ñëwee gaa yi lañ la jàngal métier bi ba mu mokk ñenn ñi dinañ leen wutal fii ñu toog jox leen ay place yoo xam ne mën nañ cee liggéey jariñ seen bopp ñenn ñi nga xam ne nag aussi waa Émirats soxla na leen ñu yóbbu leen parce que ñoomit it euh, implanté wuñu fii affaire bi ñu rek pour merci yooyu ñoom dañoo bëgg ñoom it aussi bu affaire bi doxee ñu mën a am immigration légal boo xam ne Sénégal yi mën nañoo ñëw fii dem ci réew yooyu.

defar nañ fi mbuur am nañu ñaari boulangerie yoo xam ni benn baa ngi fii ci yoonu kii bi euh, Mersef ma ngay ma ngay fonctionner normalement te ña demoon ñoom ñoo ñu ëñëwaat leen ñoom ñoo ko yore mat nañu à pare ay cinq wala 6 personnes ñu nga cee liggéey beneen bi aussi ñu koy def fii ci boor bay dëkk fi mu nekk nii gars financement bi la ñuy xaar pour boobu mën a dox yu mel noonu nag buñ ko multiplier nit ñi danañ am ci lu ñu jàpp maire bi nag dafa am foo xam ne aussi fa mën a yem ndax emploi ak euh, chercher nit ay kii yooyu ci mbirum état la te état tamit mi ngi ñuy jàppale pour ñu jàppale leen ndax gis nga barki dem port bi doon bëgg tam amon coow lu bari li port bi bu ñu ko defoon fii ci dëkk bi njariñ la dëkk bi xam nga port de pêche ha ah, nga ñëw nga xam port de débarquement la boo hamni, ni dañ koy li ñuy jël dañ koy jaay bitim réew nga xam ni prix ba day gën a baax mais loolu bu ko fi defoon yaakaar naa tamit ci nit ñi la. ci au niveau de la avec les Belges le fonds communal ah Belges à peu près 65 millions CFA loolu bu dugal tey ñu def ci ay projet projet yoo xam dañ lay jox da ngay ñu ci ñu ngay surveiller ngay di rembourser ñu jox mais loolu lépp tamit ñun suñu initiative la mais nag gis nga loo bi ni mu ñëwee ni ak nit ñi ni ñu baree nii kooku <laughs> maire Mbour yaakaar naa ni dooleem day wàññeeku foofu waaye nag lu ñu teggi suñu tànk dañ lu ñu mën a def dañ ko ci def waaw mais xam nga boo nee damay dem parce que da ngaa gisul loo ci loo téye lu wóor waaye nag du ñëpp mën a téye ci lu wóor parce que aussi am na loo xam ni am nga ko fi di ci liggéey ñooñu surtout ñooñu laay wax ñi nga xam ne am nañu li ñu liggéey ñu ngi ciy jàpp ñooñu bu ñu nee dañuy dem man dafa may jaaxal bërki dem rek ñu ngi waxtaan ak ñoom bi fi DER bi ñëwee pour ñu jàppale leen man loolu laa bëgg sax au niveau ci ci DER bi ñu gën cee waxtaan dafa leen ay regroupement ñoo xam ne ñu bokk métier ñu boole leen financé leen nag loo xam ni war nañoo mën a cee liggéey pour mën a toog loolu tamit ñun ci au niveau de l'état ñun ci loolu la ñuy jàpp ndax état aussi li mu ci mën yëpp mi ngi koy def mais nag dama bëgg ñu impliqué ci maire yi maire ak yooyu pour ñu mën a jàpp parce que maire yi aussi ñoo xam demande sociale bi ni mu toll te bu soobee yàlla ñun maire bu daal lépp lu ñu ci mën pour affaire bi mën a jëm kanam dañ ko def mais nag bu géej gi daal ak yi ni mu toll nii nañuy xale yi nañu toog loolu daal mooy suñu rôle. waaw xam nga toujours dañuy wax diwaanu Mbour xam nga département de Mbour bu ñu koy wax toujours dañuy wax ni Mbour bu ñu wax sax dëkk tàngam ak dëkk tàngam mais ñun suñu bopp nii gaal gi nga xam ni barki démb mom wóor nañu fii la départ mais bo xolé yéen journaliste boo leen enquêté di ngeen xamni ni gaal yu bari départ wu ñu biir Mbour mais ci département bi lañu ñuy départ fii ba Joal dafa yaatu all bi mën a contrôler lepp mais ñun li doon wax moy nit ñi nañu waxtaan di dénoncer gis nga nit ñi tant que dénoncer wo tu es complice. il faut aussi euh, force de sécurité intégrée boy yi te yu bari nag boo gisee ñu jàpp leen force de sécurité yi ñoo ko def ñu ngi leen ciy félicité bu baax ndax dañu dugg seen biir ba xam la ñuy def ñu aay leen ko jàpp leen te loolu aussi euh, li tax ñu di ko def aussi mooy affaire kii ñi nga xam ne ñooy yóbbu nit ñi di convoyé am na ñoo xam ne xamuñ sax luy géej dañuy dem defar seen gaal fële ca àll ba ñëw indi ne kaay ñu dem te xamoo ca dara dara dara li leen ci intéressé mooy li ñuy def seen poche dem seen yoon am na fi benn année ça fait quatre ans benn gaal gu ñëw. jël ay maliens jël ay guinéens ay mbuur ay kii jël leen wërloo leen ci biir géej gi pendant quatre jours yu mat sëkk nekk ci biir àll bi ba mu neex leen ci biir géej gi ñu ñëw teer Lamantin Beach guddi foofu day mel ni Paris guddi nga gis ay tubaab nga gis bateau yi taxaw ñu daal di wàcc gars yi ñeen egsi ngeen ñu wàcc nii di kii di raam ndànk di ñëw ñi leen jëkk a gis gardien yi dañoo daw mais dañoo dellu si neen yéen foofa la di lan la gaa ñu ne waaw ñun il faut ngeen dimbali ñu jàppale ñu seen seen moroomu nit ku ñuul lañu comme yéen commencé expliquer ah ñu soog a ñu Espagne gaa ñu ne leen fii du Espagne yéen yéen a ngi Sénégal yéen a ngi Mbour gendarmerie lañu mujj woon jàppale leen ñenn ñi ay 2 millions lañ joxe ñi ay 1 million 500 te loolu mënoon nañ cee liggéey jàpp ci mais teg ñu bari nag dañuy wax Mbour kii mais ñu bari dëkkuñu sax Sénégal fii la ñuy def point d'embarquement am na ñoo xam ni léegi comme fii euh, service de sécurité yi yëngal nañu ba mu dëgër am na ñoo xam ne dañuy dem ci frontière bi am ñoo xam ne ñu ngay dem Gambie ah, am na ñoo xam ne ñu ngay woote fu ne affaire bi daal c'est ba damay jàpp ni sax day nuru balaa loo xam ne dem na ba si yàgg pour nga contrôler leen ndax da ngay gis ñun bërki dem rek gis nga am na ku demoon am ay problème ñu dem ba foofu gaal gi mën a kii gaa ñu yuuxoo foofu nekkoon dangay da dellu si mu dellu ñoom ñu dellu si mu am ay benn ci gaañoo yooyu bi ñu ñëwaatee quelque temps après waa ji demaat bi mu demaatee xam dem ba bii ñoo xam ne ni wóor nañ bu ko ne ñëppay faatu ñu wàññeeku bi ñu wàññeeku waatu am nañu faatu xam nga ne ku dem gis loolu demaat gis loolu bi ñu ko laajee ba ki dem ne moom kay jeexal na ci dootuma génn dëkk bi dootuma def lañ nañ ñu jàppale rek lu ñu mën a jàppale kuus néew ñu toog liggéey mais loolu tamit lu am solo la nañuy nañuy def seen science seen xel ne lii fii ñuy dem nii dafa wóorul amul benn sécurité gis nga am na ñoo xam ne sax dem nañ ba àgg wóor na yàlla ni ñun dem nañu France dem nañu Belgique dem nañ fu ne mais am na ñoo xam ne ci suufu pont yi la ñuy fanaan di daaj ay kees carton yi di ci dugg bu bët setee ñu dugg ca biir dëkk ba am na ci ñoo xam ne sax pour nga récupérer leen fi mu nekk problème lañ am na ñu bëgg a ñibbisi mënuñoo ñibbisi mais loolu lépp nag il faut que ñu wax ko gaañi mais yëkkati say loxo egsi nañu egsi nañu ñëw leen egsi nañu egsi nañu te yow liggéeyoo ko ah, jàppoo ci dara. ah da ngay soog si bëgg a nii nit ñu dem ñëw loolu man d'accord wu ma ci moo tax ma ñu daal immigration bi dañ ko def immigration régulière moo gën lii ñuy def ni baaxul waaw non xam nga accord de pêche yi ñuy wax mais réew moo gis am nga ay accord de pêche yow boo demee foo dem rek am na ci ñoo xam ne dañuy ñëw pour ñëw signer ay accord de pêche ak nit ñi mais accord de pêche yi tamit ñun xam ñu ni ñu koy si ak ñoom

ñu fay nañ fi ay nit pour ñu defar ko ba ñu demee ba ci ligg ba xam nga chinois yi ko defaroon ñu ñëw bañ ci paree ñoom pare nañu dem nañu léegi nag seen ampoule yu bari ak seen yu bari yu ñu fa defoon dañ ko war a changer parce que yooyu nekkul norme yi nga xam ni mën nañ cee continuer bon wax nañ ko fii euh, signé nañu ay accord sax ak ay Auchan yooyu pour ñu jàppale ñu mais stade bi sax am na ay espagnol yi fi nekkoon daan ñu fay xaalis. chaque fin du mois ci lañ fay personnel bi mais bi Covid bi ñëwee ñoom it ñu am ay problème ñooy ñëwatuñu fi mu nekk ñu ngi waxtaan ci réunion pour jéem a xool yan kii loxo ñan lañu koy teg te nag aussi ñu ngi lancé un appel ak ligue régionale bu pour ni ñu defaree stade yi lay nekk Thiès ñu defaree ñu jàppale ci suñu stade bi ci pelouse di ko laaj aussi ministère euh, du sport di ci ñaan pour mu gën ñoo jàppale ci suñu stade bi ñu ko biñ nañu nag mais dinañu bindaat ndax ñëpp xam nañu Covid bi fi mu nekk impacté na ñëpp ñun bon su ma nee suba dinañ changé gazon bi defar ko yëpp ba mu mel ni Paris Saint fële du sotti loolu amul mais dañuy lancer un appel pour ñun ñëpp ñu jàpp ci mais nag fii mu nekk nii danañ fexe ba électricité bi ñëwaat yi nga xam ni gazon bi am na ci ay parties yoo xam ni defar na ñu réparé ko parce que bii passé sax waa jàmbaar ñooñu ci doon jàppale ñoom sayer te ñu ngi ci leen sax pour ñu gën cee jàpp ak waa fédération bi yëpp ñu gën ci jàpp parce que terrain bi du stade de Mbour ko moom du Petite Côte ko moom ñëpp fii football Ligue de Thiès fii la ñuy yu bari fii la koy indi bon nag lu ci ñëpp jàpp pour mu dem mais bu ñu nee alors euh, mairie bi moo ko war a defar wala non no non on a passé moyen lépp luñ ci mën nag dañ ko def et puis dañu laaj autorités yi nga xam ni ñoo yore affaire sport bi ñu gën koy jàppale parce que euh, sport bi c'est un national ñun ñëpp ko bokk. waaw mais xam nga benn borom bëñ boo yoree benn bëñ dafa war a weex mais. gémmiñ goo xam ni lu nekk nga yëy bu yàggee da ngay am problème stade bi wax nañu nawetaan yi fii la ñuy nawetaan yi hmm? wax nañ la ne championnat national 1 fii la national 2 fii la Ligue de Thiès day ñëw te stade bi multi multi disciplinaire la ndax. waaw làmb ji ñu ngi kaas dañuy ñëw. coupe euh, kii du Sénégal ñu ko waxati euh, làmb ji nga xam ni moo doon euh, tournoi. fii lañ ñëwee am na ci tournoi yoo xam ni Gambien bi ñëwee fii lañ ko def concert yi nga xam ni bon sur le plan de la culture mënoo leen ko aaye da ngay joxe ay directives ne lii lañ koy def lii lañ koy def lii lañ mais yooyu yëpp bu ñu accédoo ci stade bi ku ci nekk ne il faut que ma participer ci mais day metti moo tax fii mu nekk temps yi ñu ngi def benn appel d'offre sax pour benn stade bi ñu defaral ñu ko pour bu ñu ko defaree ñu jël làmb ji féetale ko foofu temps yi gis ngeen ma yóbbu fa électricité. pour laab foofu mu gën a leer ñu gën koo defar am nañu ay partenaires yu ñëw nag ñu ngi waxtaan ak ñoom pour ñu defar ko par bu ñu ko defaree nag stade bële dana xaw a nooyi tuuti pour ñi mën a mais xam nga Mbour day dëkk bu mag ñu ñëwee troisième ville du Sénégal ñu ne benn stade bu fonctionnel la ñu am waaw yooyu yëpp itam te am nañu ay place yoo xam ni war nañu ko war a mën a defaraat pour nit ñi mën ci def sport ndax sport bi aussi lu am solo la ci réew mi waaw te loolu aussi bàyyi nañ ci xel bu baax a baax te lépp lu ñu ko ci mën aussi danañ ko def euh, élection euh, stade de Mbour waxtaan nañu ci xam nga temps yëpp coow amoon na ci ñuy wax ni stade de Mbour euh, assemblée générale bi kañ la ñuy renvoyé coow li bari parce que ambition yi nag ñoo bari woon te ambition yi dama jàpp ni ñett ñi nga xam ne ñoo bëggoon ku ci nekk jël présidence bi da nga yor sa programme pour bëgg dëkk bi stade bi jëm kanam ñoom ñëpp nag ñu ngi leen di remercier parce que nag au final il faut ñu jël kenn. fane yalla dafa def ni def nañu consensus ba ñi nga nous avons nañu ki ñoo bari dañoo désister ñu pas kenn mu dem te ki ñu bayyi aussi ku ci stade bi ku xam stade de Mbour la nekk na fi adjoint lu tam bi ñewé def acclamation ñun ñep dañ contane ndax ñun bi affaire bi préfet def ñun maire le préfet les sages surtout Karim Sar, ñom ñep kenn dessul dañoo ñu réunion sur réunion mairie préfecture koko euh, bit pour ñu mën a juboo bi ñu demee wasaak ñu ne dañuy voté ci diggante bi gaa ñi toog ñu waxtaanaat gaa ñi waxtaan am na ñoo xam ne dañ ñoom bàyyi nañu ñoom nag ñu ngi leen di félicité di leen gërëm mais nag euh, dañoo bëgg ñi nga xam ni ñëpp dañ doon nekkoon ci affaire bi bëgg ñu nekk ci ginnaaw ki ñu ki nga xam ni moo falu ñu jàpp ci parce que bu ci ñëpp jàppee euh, dinañu gën a jëm kanam te stade dana sori ndax dama ko wax toujours ne ko maire yi moom fi mu jàppoon ba léegi mi ngi fi jàpp ndax ñun voté nañ ci suñu budget lu war mat 75 millions pour le mouvement associatif ñun ñu équipe yëpp dañ leen subventionné te dañoo bëgg subvention bi bu ñu demee ba ca kanam bu ñu Afrique ñu jën ma yokk gaa di dem di ñëw nga xam dañ ci dema dama si yàgg sax ñom ñu mëna doxal seen bop mais tant que euh, ñi ngi taxaw fi ñi ngi taxaw fële bu yàggee affaire bi day gën a dispersé wu mais foofu foo koy amee fii c'est-à-dire que bon nguur nag aussi <laughs> dafa am limite fi mu nekk nii état moo ñu mën a jàppale ñu yokk suñu périmètre communal pour mën a am yeneen stade waaw parce que ñaari yee fi ne xam nga mënoo ko jox kenn bàyyi ka ca des léegi il faut ñu def ko ay mbir yoo xam ne gis nga suñu stade bii amoon nañ ci ay projet yoo xam ni ay ay partenaires fi ñëw ñu bëgg ñu war faa defaat yeneen ñaari kii de football ci biir. defar fa loo xam ni équipe yi danañ ci mën a jariñoo mais xam nga rek lu xew léegi rek bu ñu laal suñu stade bi buñ ko bàyyi ni ñu ko bàyyi mbakkañ boo xam ñu ne ñu bàyyil fi génération mais génération dañoo bëgg li leen fi bàyyil génération yi di ñëw ñu defal leen loo xam ne bu ñëwee fekk ko fi mën cee jàpp waaye ku ñëw ne nañ xaar génération future ku nekk nañ xaar fexe ba kañ stade bi am na 14 hectares yu nekk ci ginnaaw il faut que ñëpp toog euh, sportif yëpp toog ñu gis projet boo xam ni dana amal ñëpp njariñ dana amal waa Mbour ñëpp njariñ ñu def ko pour stade mën a jëm kanam bàyyi 14 hectares ca ginnaaw ñu di ci tuur ay mbalit lu nekk ñu di ko ca def amaluñu benn njëriñ dañu waxtaan ñu xool lan lañ ci mën a def ñu def ko fa.